bismillahi rahmaani rahim salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa mbokki julli rawatina mbokki talibé ci ndigal Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké xalifa général kul murid yàlla na fi yàgg lool tànd wér ci turu sunu jëwriñ Cheikh Mahamadou Mourtada Mbacké moom Serigne Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg lool tànd gu wér buñ ko tuddee tudd nañ mbooleem mbokkam yi tedd yu baax yi ñooy njabootu Serigne gépp ci seenug ñaan seenug safoo seenug taxaw seenug jàppale ak seeni taxaw cheikhul xadim mu di kërug lislaam fii ci Tuubaa Parcelles Assainies muy barab bu ñuy jaamoo yàlla dafa jàng ak jàngale ak a yare ak a defar jikko ak melokaan nit ci taalibe barab boobu nag di lu jamono wu di lu moderne wu ba tax na mu aajowoo ay moyens yu finance yoo xamante ñu takku la muy koom mu leew te fullawu moo tax ñu jàpp bisub jaayante ngir ne lislaam pas-pas ak yitte ju kawe moo ko àggale fu ne mbooleem jëf yu rëy yu màgg yi mu amee ci ay ndam kon nag ñu fas yéenee roy ci loolu bis bi nag mi ngi tolloog le 7 janvier 2024 dëppook dimanche Parcelles Assainies lay doone ci jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ji Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi nga xam ne moo nekk unité 13 den ak hôpital Mame Abdou Aziz bi ngir tàbbi ci liggéey bi ba man cee joxe nag comité finance bi nga xam ne mooy saytu liggéey boobu jàpp nañ la ay yoon yu gaaw yu wér te leer naññ te wóor di ci woo nag ñëpp bàyyiwun kenn tey fàttali waxi Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne mi ngi wax nan bum laal suuf ixlaawu kalimatillaahi hiya xulya ak jongante ak xëccante wala ëppalante ciw yiw yu saari'uuna fil xayraati ma dolli ci ne suñu borom day wax ne ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ngir mu nattu leen ku mu ci yéen kenn moo gën a rafet ay jëf kon nañ ci sax ñun ñëpp te jàpp ci mbokk yi ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal pas-pas liggéey bi nag teewaay yi teelaay yi fas yéene ànd ko nag jëf yi sellal ko bis baa ngoog nañu ko bokk waajal yàlla nañ ci dajeeg tawfeex sëriñ bi ak ndimbalam ay ca ay ca murit ku man nga dara langa nga man jëbal ci Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mu baarakul ibtidaa may mënatul intihaa numéro bii nag mooy numéro wees bi mii nañ ko lool mooy 78 129 51 51 wala crédit mutuel bi mooy numéro bii nga jàkkaarloo lépp loo ci def danaak si liggéey bi bis baa ngoog le 7 janvier jumaay Cheikhul Khadim yi nekk ci Balsasini dañuy xëy jàngal xuraan yéen jàngal xuraan ak kuréel bi jàng kuréel bu wàcc sa morom yéeg ba keroog di ñu jul tisbaar bu ñu jullee ba noppi nag daal di waajal jaayante bi ñu ngi ciy woo ñëpp ci réew mi ak bitim réew bàyyi wun kenn salaamaaleykum ba